xaaj bu jëkk bi ci ñeenti xaaj yi yàlla yóbbu na waa Israël ci réew mi mu leen dig tey dinañu waxtaan ci ni yàlla yóbboo waa Israël ci réew mi mu leen dikk gannaaw ab diir waa Israël dem ba jub kanaan réew ma leen yàlla dig yàlla wax Musa mu yónni fukki nit ak ñaar ñu xolli réew ma ndaw ya dellusi ne réew ma naat na lool waaye ay miir ñoo aar dëkk ya te waa réew ma ay ponkal lañu kon dañu ragaloon yosuwe ak kaleb rekk ñoo gëmoon ne mënoon nañu jël réew ma noonu waa israyil bañ a dugg ca réew ma yàlla daldi mer mu bàyyi leen ñuy wëndeelu ca màndig ma ñeent fukki at ña bañoon a gëm yàlla ñépp dee nañu ca màndig ma gannaaw gi waa Israyil tàmbaliwaat di jàmbat yàlla mbugale leen ay jaan yu am dangar yu leen di màtt waa Israyil xam ne bàkkaar nañu moo tax yàlla mbugal leen ñu ñaan Musaa mu tinul leen yàlla ci jaan yi gannaaw loolu yàlla wax musa mu tëgg jaanu xànjar wekk ko ci bant képp ku xooloon jaanu xànjar ja mu muccoon nga bi musa demee ba màgget waxoon na waa israel ne benn bés yàlla dina yónni ab yonent bu mag buy jottali doom dina doon ab musalkat bu mag ni ko musa nekke woon yàlla fàttewul woon li mu digoon aadama di ko gannaaw gi ibrahima léegi ma laaj leen benn lu tax yàlla bàyyi waa israyil ñu wëndeelu ñeen fukki at ci màndiŋ mi ndaxte dañu ñàkkoon a gëm yàlla ba bañ a dugg ci réew mi leen yàlla dig ñaar naka la nit ñi jaan matoon mënoon a mucce su nit ñi xoolee jaanu xànjar ji matt matu jaan yi duñu leen rey